Seydi Bachir mi yàgg nañ lool moom ak Baye Pen ak Bachir Dieye beneen bi Talla Seck nga xam ne dafa xaw a jagadi ñi ñëpp maa ngi ñoom ñoo fondé colonie bi ak Moussa Diop ak yi yëpp ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp buñ paree ñu jox suñu papa ji moom itam mu sànni ci kaddu bala ñoo yeewu nit ak soxna Rabia xam naa naaj na waaye incha allah dañuy jox rek euh, directeur centre bi mu am ay kàddu yu mu jotal mbokk yi kon ñu déglu ko ginnaaw bi ñu dugg si seytaane ñu ngi eh, di wax ni imam ñun commencé nañu wéet wallaahi commencé nañu wéet ndax eh, weer yi def dafa gaaw daal waaw weer yi gaaw na lool ba wéetaay bi ñu ngi dugg waaye lépp nag ñu sant ko yàlla. kaddu euh, gi kaddu yi du bëri nekk kaddu sant euh, ndax dañ ko am ñun fi nekkal ñoom ñëpp ku ne dugal sa loxo si liggéey bi euh, ñi commencé si cant bi ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom la ñuy rendre compte ñooñu ñi nga xam ne ñoom la ñuy rendre compte di amoon na yéene wax dëgg yàlla teew wan woo ma ce euh, matin ni ma doo mën a ñëw wante madame Ndoye bu ñëwee mel na ni ñëw naa donc madame Ndoye ñu la wax ni la yow yaa fi teewal madame Ndiaye voilà voilà donc moom moo fi teewal waa INPEX euh, ginnaaw loolu tamit ñuy euh, sant suñu dëkkandoo yi maanaam waa Touba Peku ndax imam bi bëggoon naa ñëw man ak imam Dianké dem nañ fa naa ñëw mais am miraas bu ko buñ ko woo loolu tamit loolu tamit liggéey naan maa loo tax ñëwul. dafay joxe diplôme. bu ñu jógee foofu ñuy defal mention spéciale madame Diop euh, Seydou Ndaw euh, alhamdulilah bi imam Dianké xalaatee jox ko diplôme. parce que ñëpp xam nañu si euh, biñ def colonie bi dafa am ndox buñ fi jaar muy ndox mi ni moo doon ñëwee pression bi ni moo doon ñëwee dafa wàññeeku yàlla def ni këram rek moo mën am moo am ndox. mu boole li ko neex ak li ko naq yëpp muñ parce que man man noonu laa mën a tuddee accepté xale yi ñu fay dugg pratiquement cinq du matin ma laay dégg xale yi dugg këram boobu mën nañu wax ba six heures ba sept ba dix xaw ma dix neuf ma xale yaa ngi jaamante këram mais ku mel noonu nag koo xam ne moo naa xatal comme ni ma ko waxoon si si euh, monsieur loolu lañ ko wax ñu gërëm ko parce que loolu bu ko bu tëjoon këram dina nekk xat-xat si ñun boobaa ñu dinañ jëf uti ñu ko dañu ne ba defal lu baax bu ñëpp toogee sant ko parce que parce que mu defoon ko dafa gën a rafet mais bu ko defuloon tamit duñ ko si xañ maanaam duñ ko si ñaañ duñ ko saf dara loolu tamit ñu ko mbokk yi wax dëgg yàlla ku waroon mën ku yaatal la loolu tamit ñu ngi koy seedal ñëpp ñu ñaan yàlla ngeen ñaanal ko yàlla moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ginnaaw loolu ñi ñi nga xam ni ñoo fi yore wàllu sécurité parce que sànq am na sécurité Euh, ki ma si tudd rek boo ko tuddee tudd naa ñëpp muy euh, Landing Sané parce que sant bi am na ay vigiles yi monté sécurité donc euh, vraiment amoon am na sécurité ñooñu tamit nga xam ne ñun buñ leen tëdd ba suñu xel dal ñooñu nga xam ñooy veillé si ñun la nuit ñooñu tamit jar nañu sant donc ñooñu tamit ñu jël suñu sant ak suñu ngërëm ak suñu ñaan teg ko si loxo imaam mu ñaan leen yàlla. ginnaaw loolu ñu ñëpp ñi nga xam ne sax vraiment suñu jigéen lañu ndax ñun ñu ñu ñoo. man maa leen boole ak imam mooy ñi nga xam ne ñooy dugg suba teel 6 heures du matin dugg si euh, chambre yi defal euh, chambre yi ak ñi xam ne ñooy fóotal xale yi ñoo ñëpp kuñ si waxal da nga ni dañuy participer ngir yàlla amuñu benn contrainte financière bu ñu teg si euh, imam ñoom tamit jar nañu ñaanal yàlla sant leen ginnaaw loolu tamit ñu ñaanal yàlla di sant madame l'infirmière madame l'infirmière di madame Sarr def naa ne man instant xale yi jaar sama kër gi moom infirmière la ñuy seet ma la noo fëlal rek moom tamit mën nañ wax ne à tout moment xale yi dérangé nañ ko dama ko tuddee sax dérangé parce que lu mu bëgg la moom tamit bi imam ñëwee di wax moom pour lu mu koy motiver dañ ko laajuma dara ku mel noonu tamit jar ñu seetal ko mbokk yi ni moom laajul dara mu ni moom comme liggéey da ngeen liggéeyal yàlla dinaa dugal sama loxo waaw ñun ñu ngi wax madame Sarr nga ñëw def fi euh, xamu sa diplôme waaw mooy infirmière wax dëgg yàlla ku si jàpp la euh, ku jàpp la donc ku bañ a gudd daal ñu ngi sant ñëpp di wax ni imam moom ñun gën nañ ko naw parce que euh, dañuy wax nit boo ànd ak moom voyage di nga xam jikkoom mais nit nag bu la ganesee di nga xam jikkoom imam li mu gën a marqué mooy dama ko wax man ko imam yow manga bu la nee ñëw si xale yi ñëwul sama kër ma jox ma fu nekk man ma bàyyi ma ma jël jàkka ji man ah imaam la bu bu jëlee jàkka kon kër wàcc na wante nit ñi dañ ko yërëmoon ndax yooyu dañ ko commencé woon mat ba finalement dañ ko utal moustiquaire boo waxee mu ni fii laay toog fii laay toog si jumaa ji si si jàkka ji ndax damaa bëgg a créer benn ligne rouge ligne rouge boobu li ñu bëgg a tudd mooy xale yu góor yi duñu fekk xale yu jigéen yi voilà loolu tamit foo ñu il faut ñu bu parents yi ñëwee foo ñu xam ne ne joxu leen leen imam rek mu nekk mu def ko fond de commerce maanaam mu ngi waxuma dina jëm si dugg si xale yi mais mu ngi béyee si seen intégrité morale bépp xale bu góor doo dem si xale yu jigéen parce que loolu taxoon mu bëgg si euh, jàkka ji loolu tamit foofu ñu seddal ko parent yi ginnaaw loolu li mu def lu li mu li mu def gëm na ko loolu mën nañu ko seddee. ndax du toog deux jours yu demu Dakar bu ñëwee ne ah son man ko maître man man mais bu bu méttee ñu bàyyi kan mooy jafar loolu tamit fu mu séddale ko ni ku am pas-pas la neen man nee naa ko kuréel gi moo ñu boole mais man jox naa la sama ko wax la ko boo amee donc yàlla def na ko ba pare. bañ a góor daal wax dëgg yàlla ñun rëccu wuñu luñ doon accueillir euh, colonie bi bañ a fàtte parce que xel day fàttu. sëñ bi dafa am particularité particularité bi mu am mooy ñu dañ koy dëkk ak étudiants yi université Thiès euh, saf bi Malick Seye wax na ko léegi étudiants yi bi xale yi ñëwee commencé laaj ne ah étudiant euh, yi ñu ngi lay daal ñu non ñii suñu rakk la ñu ànd ak ñoom ba même xale journal yi journal yi xale yi def sax étudiants yi dañ koy assisté école moo école moo tëj moo tax ñu dem mais ñoom tamit jar nañu sant jar nañu gërëm parce que ñoom tamit bu ñu xataloon ak étudiants ni amee doole bu ko buñ xataloon tamit loolu ko li ñu am kon tamit man damay am gàcce ñooñu tamit il ñu sant leen gërëm leen ñaan leen yàlla li ñu si fii muy diplôme yàlla na leen ko yàlla yombal li gën a jafe si réew na leen bañ a guddal daal ñu ngi ñaanal imam moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal xam nañu pas-pasam si diine liñ koy ñaanal daal mooy wér gu yaram santé de fer matal ba li mu bëgg mu def ko parce que bu amoon ñaar ñu mel ni si diine wax naa ko dem parce que bu amoon ñaar ñu mel nii kon li ñu am nañ dem commune bi dem ba ay Espagne ay et cetera ñoom teeku la ñëw mais liñ am fii neex na yàlla neex na yonent bi loolu ma nañ ko seede donc vraiment ñun jox nañ ko ñu diplôme d'honneur mais ñu jox nañ ko diplôme boo xam ne suñu xol lañ ko tibbee waaw yow kóllëre imam waaw man dama leen ni kóllëre bi mais ñu xamee bi xamee bi ba ba yàlla di wol bunt bi incha allah mi xamee boobu euh, mu ngi te yàlla bu ko yàlla nenal donc bañ a gàttal daal ak imaam yi ak euh, ustaas yi ustaas Diouf ak ñoom ñëpp ñu leen sant ñu leen di gërëma ñu ngi sant ñi ñëpp koo xam ne si colonie bi xaw nañu la si euh, xos yi wala def nañ te la ñu lay si déglu xam ne bëggoon defar rek moo ñu ko waral donc ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp alhamdulilah alhamdulilah. léegi. bañ na ko def ah bu ñu ko ñu bëri leen ne Abdoulaye bañ ko namee bees dafa ñëw ba pour di jënd màndo <laughs> arrêté escorte bi yëpp. ايوه قوس النوي وعصيب الرابعة ان شاء الله قوس النوي بريزيدان قوس النوي بريزيدان قوس النوي بريزيدان سيدة رابعة بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ñu ngi am mbégte ñu teewee fii tamit lu am solo li nga xam ne lañ fi gis li ñëpp wax rek loolu la wax te dama yàgg di wax ne ah jaam amul lu dul yéene ak yaakaar man damay wax ne man ku bëgg a gis nitu àjjana na xool Babacar man loolu laa am yaakaar ndax li nga xam ne moom la yàlla soxla ci jullit da koo am wax nañ ko fi léegi ay mbokk ak ay kóllëre man mii toog nii di sëram daanaka su ma yeboon jege nañu vingt cinq ans te yàlla rek boole xeebul kenn bëgg na ñëpp du ñàññi kenn kenn du ko gis mu mer kon yi gis ko moom la ñuy sallallahu alayhi wa sallam jàng bu loolu passé ci wàllu liggéey bi mënoon na ubbi daara yam ca waaye mu ngi rattrapé ñi nga xam ne dañoo war a échec ci ay doomu jullit nga xam ne biñ juddoo ba léegi ci tubaab lañ ne dañuy dem ba màgg duñ gis diine kenn looloo tax mu kenn yekku la ñuy kon du pour moom du pour poosam mais pour jullit yi la mais pour defar ndaw te ñu ngi ñaax bépp waajur lii ñu wax léegi lu ma d'accord la xëy na somme bi bu xasee bu xawee diis nañ koy waajal te man mii dem ak sama njaboot dinañ ko waajal incha allah indi naa fi kenn nii waaye danaa fi indi ñeneen ci kàttanu yàlla ndax dem nañ ci tubaab yi rek ba màgg nar a sànku te loolu yàlla ci yàlla mosal yéen bi salaa salaam dafa ne maa naxala waalidun waladahu afdal min adamin hasan amul ku mën a jox kado doomam kado bu ëpp yar ko yaru diine moom mooy yar bu rafet yar budul yaru diine rafetul kon loolu euh, ñu ngi koy ñaax suñu bopp di ko ñaax benn bépp wéy bi waaye tamit liggéey bii ñu gis fii dafa war a am fii man loolu moom gën a amal yi li ma gis ci xale yi ci un mois bi mais mën na demaat ba am bi dellu ci bu ko way jur yu suuxatee roose ko arrosé ko mais suñu eggee rek jëlaat valise ya ak armoire ya solaat seere yi ña ca xale yi jigéen ña solaat jin yi solaat jëpp yi gàpparuwaat ci salon bi yem ci télé bi la yéen ndoteeg moom ñetti fan liggéey ba yàqu kon loolu sibi la war a nekk way jur bu nekk dafa war a topp bu fekkee bu fekkee dafa mel ni man xamoo lu bari da ngay topp ci sa doom di ko xool ni muy def parce que lii ñu jël fii dafay continuer kër bu ñuy egg léegi da ngay gis dañuy waajal takkusaan waajal timis ci waajal bu rafet ñun ñi nga xam ne dañu xaw a sàgg nañu wommatu ci xale yii waaye jàppale leen bu demee sax ba bëgg a fàtte fàttalil xale bi mu delluwaat ci li mu amoon ci colonie parce que li yàq éducation fi mu ne nii dafa bari réew mi ni mu toll xam nañ ko loo liggéey ci un an mën na yàqu ci 15 jours li mu liggéey ci un mois bi mën na yàqu balaa semaine waaye rek ba mu yàqu way juri ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci bi ñu amee bii vision indi xale yi fii di Colombie bi gërëm nañ leen sant nañ leen di leen ñaanal yal na leen yàlla yokk doole ba ñu ko mën at mu ne waaye di ko mën ci seen yeneen i njaboot waaye itam nañu def suivi bi toppatoo xale yi ba nga xam ne bu ñuy ñëwaat déwén dara du ci manqué kon Oustaz Babacar dañu dellu di la ñaanal yal na la yàlla taxawu dafa jox ba boppam yàlla ba mu jeex tàkk nangul boromam moo tax jullit yi nangul la te ñu la nangul yëpp ñu baax lañu yàlla du wommat ku bon mu topp la ñu la topp yëpp ñu lay jàppale yëpp man première taalibe yi jigéen ñi ca laa bokk ñëpp ñu baax lañu xëj na maa ci gën a sàggal kon Babacar yàlla la yàlla topp foo nekk yàlla ci yàlla taxaw loo nekk yàlla ci yàlla dugal loxo wallahi ñu koy ñaan suñu fond de cœur di ñaanal julli ci fi yëpp di gërëm lu di sant ñëpp di jéggalu bu baax a baax aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منما لا وحلو ما يقرأ ينما لا يلا فيال جزاكم الله عنا كل الخير يلا يلا في يا ربي سواق جي نكان بنين بكر بفاس دل فيتامين بو قمنا دف ما يق ما في يق يقي إلى الأمام إلى العلا بإذن الله جزاكم الله عنا كل الخير قد جتهم بنج نمنا نرك إن شاء الله وير لن دف momit ku bëgg colonie bi la doomam sa am na ci diplôme de reconnaissance aywa Cheikh jallo euh, très bien Mouhamad Rasoul ndjay Mouhamad Rasoul ndjay Amina ndjay moko jox diplôme am Amina ndjay ki don togg Mouhamad al Muallim Muhammad al Muallim fum nek moy sama imam nak man imamul imam parce que def na mu may jité naafila alquran juróom ñaari at ne ko yàlla na ko yàlla kan moko jox mahdi al muallim mahdi mo lay jox an takuna mahdiyan wa hadiyan ila siratillah soxna beti soxna beti Gueye madame hasan sek moy jox diplôme mohammadou teliko ana Teliko teliko Ousmane Diop ñewal yow it ñuy joxe diplôme Teliko ci nga bok ana teliko na. ana al Hassan Banna Hasan Banna moy marabu moy marabu Senior Fall way dafa melni ñaan ñi deugur ndax Senior dafa mujj ragal qala qalu bi dafa xaw a yox tuti <laughs> hasan Banna aywa aji beti Masya Allah Sayyid Mubarak Drami, Ustaz Bashir Dieye moo Sayyid daaw moo ñu Kamil kaamil ba mu jeex kamil moo ñu naafilal kaamil ba Mustafa jeex waaye dégg naa ko bëgg màngo Mustafa nag Mountaga Ndior la ku jara sant la. waaw Mountaga moom beneen affaire la. depuis bi colonie am na fa. Euh, jëli ko waaw joxo joxo boo xam ne mu daal dem jël oto dem. ba jëli ko waaw. jël fa matériel yëpp. indi ko dikk soxna Sow ana la ñuy animé macha allah. benn diplôme. aji ndey loo jege alien Ba madame Ndoye moo koy joxeel diplôme alien Ba ci fondateur yi la moy doomu ma Yacine Ba mo len andil garab yi bari lool ren fa tabarakallah yaay koy joxeel diplôme moom madame madame Ndoye N1 N7 N N5 madame Ndoye N5 nenañ ma mo njëkk tëri alquran ci tundu Pambal jarak bi ma koy yóbbu muy tëri dañ yaakaaroon ne Sénégal ku santoon Mbàkke santo si santo nangam ak nangam doo mokkal alquran maa ngi leen loolu ay wax rek la yëf yi jàng laa góorgóorlu incha allah ma fi yoxo yoxi Mouhamad Diop ndey loo moo koy jox diplôme am ana fariata ñan na jege Diom hmm? Mouhamad Diom wala Diop Diom ah Diop muhammad Diop agenda ndey loo diploma. koy jox diplôme am Khadijatu Kamara Fariata Ñang moo koy jox diplôme am Khadijatu Kamara ci mujaahidaat yi la bokk xale lañ ayo xam ne biñ ñëwee nekkuñ ay colon waaye dañu nekk ay monitrice taxaw wax soxna ana Muhammad Rasul Muhammad Rasul soxna job moo la joxeel sa diplôme Sofia Ndoye nako ko madame Silla joxel diplôme am madame Silla ku yàgg son la ci colonie bi moom itam ca yeen la woon waaw ca wax deug yalla ana Sofia Ndoye Sofia Ndoye Aisha Maram Diallo suñu yaay di yaay ci Kane kan yokoy joxel diplôme am mu baal ñu nag ci déplacement bi dañu waro nañu bu fofu moy suñu yaay di yaayu suñu wolare suñu rak bi sédi charno kan nga xam ne ku ko xam-xam ko ci colonie bi ak masjid Bel Air ak liggéeyu lislaam maman ndaxte na jégué ci ok mu ñëw jël diplôme mama ndax ndaxte njëg ay samarem Diallo Khadija Diop moom fondatrice la Khadijah Job mooy jox ndey aram buso diplomam Khadijatu tujuh, fondatrice ah Khadijatu tujuh, umur muminin Afiyah yoxi alaykum warahmatullah, Safiyah rahmatullah Safiyatu Ndooy kan moo koy jox diplôme am euh, xale yi bàyyi ko euh, nu point soo mu jaay di na kenn jóg. li may ñaan yàlla mooy ñaan yàlla mooy ak sama famille yëpp ah, ah, yàlla bo euh, may ñu. fan wu gudd ba colonie bi suñuy seti set di ci ñëw imaam nag amuñu sa fay yal na la yàlla fay man nag damay wax ci tout famille Guiro ak famille Seck parce que comme ni ma la ko waxoon euh, fii dañ fi indi xale yi par l'intermédiaire par suñu benn connaissance moo ñu boole mais li ñu doon wax ci colonie bi yëpp ko parce que xale yi gis nañ leen dafa naqari nag ay nit yore ay xale parce que xale bu nekk day ñëw ak jikkoom mais xool nañu xale yi fi mu nekk ñi ngi ñibbi mais seen xel yëpp ñi ngi ci yow euh, li soxna lay wax wax naa ko keroog bu ma ñëwee ci conférence bi ñun parents yi xale yi ni ñu bokkee ci colonie bi bokk ndey ak baay ñun dañu war a former une association association bi ñuy formé day tax bu waxtu colonie bi jotee du xam ki am doole ak ki néew doole kit à ce que ñuy def ay cotisation mensuelle mu nekk loo xam ne suñu yëpp lay doon parce que xale yi am nañu chance chance bi ñu am mooy man sama bopp aw ma ko parce que man jàng naa alxuraan mais tubaab bi yóbboon na ba nga xam ni

imam les encadreurs ñëpp ñi nga xam ni ñooñu téyeen xale yi ba nga xam ni tey mën nañ leen ñëw jël leen yóbbu leen kër ga te amuñu dara luñ ci naqari asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp man nag tey place bi dama fàttali sama njàngum école ak daara

dafa am lu un long discours je préfère un croquis bien précis bien concis interprété par une légende bien éloquente discours est mu waxoon pour moi tax tey man itam duma ci sori waaye dinaa joxe ay repères rek repères yi mooy tey fii théâtre Molière bu mu def 16e siècle je gis ko fii tey kar kar njàngin bu bu bes bu prati bu doy wat ndax Molière dafa ni travers et vis ont beau faire rire mais ils épuisent bientôt la gaieté pour peu que la réflexion s'arrête théâtre la xale yi def fii tey adduna ñu jàngal fii tey ñun bàyyi mam yi ndijaay yi yëpp adduna ñu jàngal tey ñu ñu wane ko fii tey ba loolu wi aussi eh, ndeysaan mu fàttali mo aussi sama téere yi may bind mu ci nekk feeñ na fi tey ndax il y a 40 ans booba Senghor était président de l'Afrique. République président présidé entrée en sixième pop ngir ñu bind ca mur ba benn phrase maa ngi libre depuis 40 ans pare ma livre bi tey xale en pratique concrétiser nañ fi du ngeen woon laaj lu phrase ba wax mu ni l'homme n'a point de port le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. amul port bu muy fege ni battu de fekk ci port waxtu amul tak gu muy fege ni ganax di fekk ci tàkk monte bu arrière amul monte yépp dañuy rapproché de jour ji te tay tey ñu waxe ko fii nii waaye adduna defar leen seen tey ndax démb jeex tay tey rek mo fi nekk ci ëllëg duñ ko atteindre mu ko bàyyi xel tey wate nañ ko fii tey ci théâtre fi njàng mi livre ba nag dafa ni ma la dignité n'est di dans le sang ni dans le rang elle est dans l'acte de l'instant tey imam jànq jàngale na ko tey dignité nit du ci jiwam a jur dignité nit du ci rang social la occupé dignité du ci dara du dul ci acte bi muy joué ci instant bi mu koy joué kon nag jafati jara jëfati jànq

mais grâce nag ci benn auteur bu ñuy wax Jean-Jacques Rousseau mu defal ko benn peinture boo xam ne dafa ni grand homme bu ñu critiqué ci bu ngeen ko liiree phrase boobu dana de danañu delluwaat noppay xam ni duñ ko mukk phrase boobu nag laay affecté tey sama doom ji nekk sama physiologique et non biologique di sama xarit di sama lépp lu mu xewle bu ma feebarul dinaa ca taxaw ndax mbaaxam il a aimé les hommes il a prié pour eux il a souffert par eux c'est pourquoi les hommes dignes de ce nom doivent pardonner beaucoup aux pécheurs qui fut lui Rousseau aux pécheurs qu'il fut ou bien pécheur qu'il est peut-être lui en changeant que même qui le critiquent sont des êtres misérables et qui n'ont ni la puissance de son cœur

des na lu bari lu ma mënoon wax waaye temps bi mayewu ko laahi jànk jërëjëf xam na bii moo tax ma xam koy ma kii mooy denc sama doom alhamdulilah xale yi tey billaahi mar nañ leen sant yàlla nañ sant danke ndax ñoom dama ni di dem ca daara ja tawte wallaahi di dem ca jàkka ja tawte moo gën di dem ca ndaw rab di tawte ngay dem ca lamb ja di tawte allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah muhammadun rasulullah allah tabarakallah mag ngoog réew ngoog Sénégal lii mooy kiitam Sénégal lii mooy ndamam lii lañ war a ñaax xale yi lii lañ war a dekkilaat ku xool njàngum mag ña ak njàngum léegi xam ne am na différence yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo tabarakallahu kon nag dañu xool la baaxoloon suñu maam yaa te xam ne tey moo ñu war a mën a baaxal kon góor góorgóorluwaat te xam ne réew mi yaakaarul ku dul ndaw ñi diina ji yaakaarul ku dul ndaw ñi te ñun mag ñi nag ñoo mën a jàppaleen mag ndaw ñi puus la ñu jëm kanam kon nag ni imam di waxee ilal amaam ilal ola kon ñu def ñaan dañu ñaanal nag tey jii bu gisee man sawaruma li may wax yëpp damay tapane nii rek parce que su ma masaan a toog fii huit ans sept ans yi passé yëpp saa yu ngeen mësaan ñëw colonie am na ku ma daan tooga loolu fii mu toog sama ndeyjoor keroog bi ñuy départ ca Sénégal bu belleer vidéo baa ngi fii moo ma jox parole moo ma jël si ñu ànd dem gunge xale yi keroog dama amoon empêchement ndax dafa amoon conférence moo doon def ca Kër Massar suñuy sëy daa yee bii ndeysaan ma nga woon ci Masaar keroog oustaz Saale moo ànd ak xale yi ñëw ñëw fii ci camp mu fanaantee xale yi xaar ma fi ba ma ñëw mu door a delluwaat Dakar yàlla dafa dogal nag yaramam dafa sutante te feebar ñu ngi ñaan mbooloo ñu fi teew ñépp ñu jàngal ko fatiha jàngal ko falaxi naasi jàngal ko salaatu ala nabi ñaan yàlla yàlla yàlla teg lépp luy jàngoro ci moom yal na ko yàlla may wér yal na ko yàlla may shifaa shifaan taaman laa yugaadiru saqaman wala wajaan wala alaman wala asaran yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla def kon ñu jàngal suuf fatiha falax ak naa salaatu ala nabi نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر على سيدنا محمد الذي تنحل به المقاس وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس لعنة يعني كل معلوم لك يا رب العالمين شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا وجعا ولا أثرا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله بالحق والحرمة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اللهم يا ميسر يسر ولا تعسر لنا تمم وسهل علينا كل أمر عسير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 shifaan taaman ah, laa yuqaadiru saqaman wala wajaa'an bi def ñaan lépp di nga ñaan daaw te lekk ñi fa nekkoon ñëpp keroog ñu seede fii ne ñoom ñëpp yokku nañ kon ñaanaatal ñi fi nekk ñëpp nag nañ yokk ñi fi ñëw ñëpp nañ yokk ku fi andaale jàngoro na wér ku fi andaale aajo na faju ñu ngi la koy ñaan ñaanal incha allah bismillah waaw kon daal eh, lu waayee rek yaa ko xam yal na la ko yàlla fajal lu waayee rek yaa ko xam yal na la ko yàlla fajal lu waayee rek yaa ko xam yal na la ko yàlla fajal yal na yàlla yokk Senelec ba délestage jeex ci Senelec loolu ñaan yàlla dem ba dootuñu amati délestage loolu maa koy ñaan yàlla. jafe-jafe réew mi maa ngi koy ñaan yàlla yan na ko yàlla génne ba yëpp yi yomb yan nañ di yokk ba di ko yëpp te di yokk ci yàlla lépp lu waay yéena place bii heure bii na nga ko yéena insha allahu da ko am bu soobee yàlla allahumma salli ala muhammadin nabiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira اللهم افتح لنا فتح الأكبر بحق اسمك العظم اللهم افتح لنا فتح القريب بحق اسمك العظم اللهم افتح لنا فتح المبين بحق اسمك العظم يا رب عجل الفرج والفتح الأكبر والقبول والتيسير والتمكين والنصر والتأييد بحق اسمك العظم يا منان يا رحمن يا رحيم اقضي عوائدنا كلها اللهم أيد مصر ودمر الشرك في مصر ودمر الكفر في مصر اللهم أيد المجاهدين في السودان وفي مصر وفي كل بلد الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أيد أهل الكتاب والسنة اللهم أيد أهل القرآن والسنة اللهم أيدهم اللهم أيدهم اللهم قويهم اللهم بارك هذا المقيم اللهم بارك هذا المقيم وثبت قدمه على صراطك المستقيم يا الله يا الله يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yal na yàlla faj aajo yëpp yal nañu yàlla dimbale ci xale yi dimbale njaboot gi lépp lu ñu yaakaar ci ñoom yal nañu yàlla wan ba wan ñu lu ñu yaakaaru doon yal na ñëpp yokk ba yëpp ko yal na ñëpp yokk ba yëpp ko yal na ñëpp yokk ba yëpp ko yal na réew mi yokk ba ñëpp ko xale yal na leen yàlla sàmm barkeel leen barkeel seen jàng barkeel seen dund barkeel seen i wayjur ba ñëpp fekkee seen i njëriñ asalaamualeykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi yàlla gërëm yow mbokk mi si ki ñu moom ngir ëllëg nga si ki sa tere nga jëkko sa ndey joor ndey joor dellu si say moom di kontaan yow nga daan am ngërëm Yo Islam, Yo Islam.